ñu leen di euh, nuyuwaat bu baax di leen di euh, jéggalu nag euh, dikk ak yéen seen émission pencum réew mi tey comme ni leen ko junjee sànq suñu invité ministre Farba Senghor la moom moo jiitee nag les libéraux républicain mbooloo askan bi monsieur le ministre ñoo ngi lay ñoo ngi lay nuyu xam naa embouteillage bi. waaw maa ngi nuyu vraiment di di jéggalu trop parce que dama am ñaari disons. Mhm. embouteillage. ndax ma génnee aéroport foofu laa dëkkee. ci rond point bu yoof bi. ma yoof Maguette Senghor bi dañ koy defar. Uh-huh. def naa foofu au moins quarante cinq minutes. ma génn defe naa affaire bi jeex na ma ñëw ba. diggante euh, stade bi. Uh-huh. Euh, mooy passerelle bi tolloog stade bi. foofu ngay jéggi Grand Yoff jëm euh, Patte mu fekkaat embouteillage bu mag. dafa mel ni benn camion daal xaw ma dafa laalante foofu. ok donc loolu moo tax mais maa ngi jégalu trop quoi. amul solo ministre euh, waxtaan bi euh, ñu doore ko ak fi nga xamante ni moom mooy euh, Guinée Conakry résultat yi kuréel gi ñu dénk élection yi joxe na ko nee na Alpha Condé moo gagné cinquante neuf pour cent lan moo ci sa commentaire. oui mu waxal ne man j'étais désigné comme étant observateur à l' élection demoon naa sax ba aéroport wàññeeku parce que yooyu beaucoup de pression Euh, principalement ak ñoo xam ne vraiment euh, dañuy suivre affaire bi de près euh, ñu wax ma ne c'est pas la peine. pourquoi parce que élection bi su jeexee il est fort possible que suñu proclamer résultat yi mu am ay problème parce que Sénégal yi seen bopp. Mhm. dañu leen fa xawoon indexé. Mhm. amoon nañ fa problème te yow tu ne passes pas inaperçu. Mhm. donc soo ñëwee foofu. ñu gis la fa euh, loolu mën na ni problème vraiment ñu def pression ma xam ne euh, suñ la digalee nga bàyyi c'est la meilleure solution. kon bettu la la fa xew. parce que su fekkee ne li digal nga bañ a def soo lëgëre naa yow bañ la waxee. defloo effectivement bon la fa nekk man bettu ma. la fa xew parce que je suivais régulièrement euh, li nga xam ne mooy élection bi. Mhm. te institut d'observation africaine bi ma yóbbu woon foofu itam ñoom ñu nga fa woon chaque fois dañu ma doon nga xam ne moo fa xew. donc bettu ma parce que bi dem na ba nekk problème boo xam ne problème presque naa ndax su fekkee ne président bi nga xam ne moo nekk euh, au pouvoir muy euh, Alpha Condé déclaré na ne euh, wax malinke yi ne leen yéen bu leen wateel keneen su ngeen wateelee keneen kudul kii dof ngeen xam nga loolu dafa dafa nekk loo xam ne mën na mën na mën na indi tension mag mën na indi tension mag te quand on connaît très bien l'histoire aussi de la Guinée on sait que pël yi pendant très longtemps Euh, ils ont été malmenés par l'histoire terrorisés quelquefois et am nañ daal difficulté yu bëri de telle sorte que et puis ensuite sur le plan électoral à plusieurs reprises Cellou euh, Dalein mi nga xam ne mooy kandaa bi nga xam ne ci ethnie pël yi la bokk on sait que euh, ni mu perte woon élection yi jaaxaloon na ñëpp parce que avec 18 pour cent Euh, le euh, président bi nekk en exercice amoon moom amoon quarante quarante quatre pour cent donc deuxième tour ñu walbati ko gagné ko euh, mu muñ ko loolu aussi nit ñi dañu yaakaar ne bi yoon du demee comme na mu demee woon donc moo tax li xew Guinée vraiment te ensuite am na un élément boo xam ne un boo xam ne président bi comme defoon na deuxième mandat ba jeexal aussi mu daal di ñëwaat. Euh, changer constitution bi ñëw ne moom ah, dafay dem aussi wutiwaat beneen te xam nga ne ku yore pouvoir da am une force probante boo xam ne mën na fexe ba yow kenn du mën a euh, foxar ci élection yi ci yow donc cela veut dire que tout yooyu yëpp dafa man ne cocktail boo xam ne alors nit ñëpp yaakaar nañu ne loolu waaye mënoon na indi ay tension tension yi métti donc li fa xew euh, peut-être man bettu ma woon ci analyse bi nga xam ne defoon naa ko ña fa nekk tam dama xam leen ñii di ay guinéen ñëw si ay étranger yu fa nekk ñi am ay tubaab lañu ñi ay nit ñu ñuul lañu euh, ñoom ñëpp liñ bokk wax mooy. situation bi dina mais euh, mais kon yow euh, xam nga ne tey fitna jafa am Alpha am na si part de responsabilité ndax yow li nga wax sànq mooy moom bu demee ci wenn xeet di la wax na la bu ngeen voteelee beneen xeet bi ay yambar ngeen kon féewaloo ba fay am ci wàllum xeet. Alpha Condé am na ci responsabilité waaw xam nga nous sommes en Afrique surtout dans les yoo xam ne société Guinée euh, ak pays yu ko wër yëpp Sénégal rek moo ci exemple mhm. de trouble. mais d' accord ci loolu Alpha Condé non d' accord parce que Sénégal rek ci exempt de trouble laal bëgg wax ethnique. ndax Sénégal kenn mosu fi am ay xeet tukulóor yeeg séeréer yeeg bambara yeeg saraxure yeeg ñëpp vraiment mosuñu am problème euh, te ethnie nekk na loo xam ne soo ko seetee ci Afrique ay xeex yu bëri. su ma amee ak dëkk yu bëri su amee ay trouble ah, xeet yi moo ko indi donc loolu man vraiment mënu ma euh, mënu ànd ci ci lu demee noonu mar nañu wootante rek nga nga woo wax ne gars yi ñëw leen euh, nga kaf sax comme xam nga Sénégal on le fait nga kaf ak sama mbokki séeréer yi sama mbokki pulaar yi et cetera mm. loolu euh, Sénégal dafa am aadaam Sénégal sax am na aadaam nga nga nga kekkantoo wala nga ñaawal wala nga wax benn wax boo xam ne ki nga bokkul xeet danga koy jëmale si moom mais du ko gisee neneen mhm. mais su dee pays boo xam ne les gens sont sur le kenn ku nekk yaa ngi yàkkamte ñu wax dara sa xeet ba nga xeex dans ces pays là je crois que kenn ku nekk war nga modérer tempérer sa wax waaw mais euh, Alpha Condé ñu bari nee na ñun dafa sàcc li nga xam ne mooy élection yi gañewut yow nan nga gisee non man nag mënuma wax ne exactement daf ko sàcc parce que man est-ce que jàpp nga ne moo gañe wax ne daf ko sàcc parce que man le détail des élections vraiment man gisuma ko mais daal may gis ñi doon ko wone ci télévision bi ak ñi nga xam ne ñoo fa toog li ñu doon wax dañ ne élection yi nii su normalee normalement bii seetlu moo war a gañe loolu moom mën naa ko wax parce que mais nag. awuma ñoo ñu ñooñu nga doon dégg ñuy wax tamit lañ doon wax est-ce que jàpp nga ne lu yanu maanaa la. mais jàpp naa la yanu maanaa la parce que euh, loolu yëpp euh, télévision yi ñoo koy wane maa je Euh, les télévisions internationales yi nga xam ne ay tv ay France 24 ay euh, Euronews ay yeneen télévision je suis également ay télévision yoo xam ne télévision guinéenne la CIS euh, télévision Espace ak yeneen télévision yoo xam ne ñu nga fa ak itam même Sénégal non non non yoo xam ne ñu ngi en Guinée ñu ngi émettre ñu ngi wax doon naa leen di suivre avant donc je suivais la campagne j'ai également ñu ma dëkkandool ñoo xam ne ñoom ay pël lañu ils ont de Guinée des fois dañu may transféré donc vidéo yi nga xam ne ñoom ñoo fa am donc je suis règlement je sais que vraiment euh, man ni ma ko gisee euh, seetlu moom mënoon na gagner élection bi au vu de li ma doon gis. d'accord yow li nga seetaan lépp monsieur le ministre boo defee recoupement bi jàpp nga ne seetlu moo waroon na mën a gagner. bu jàpp naa loolu. d' accord mais waxuma ne moom moo gagné parce que awma benn élément bu firndeel loolu. mais ñi nga dégg ñu doon wax doon nañu teg ay éléments quand même doon génn ay ay xam nga li ñuy wax ci biti ak li ci urne benn ndax soo gisee ñu dem élection dem bañ gàcce dugal ko ci biir urne bi c' est à dañuy décompter des voix donc décompte des yooyu rek officiellement moo mën a génne candidat bi mais daal su dee man li ma doon gis ci biti ak li may dégg ak ñuy wax Cellou était bien placé pour gagner élection bi. été mënoon na ko gagné. mais la euh, la génn ci urne ba rek loolu vraiment man gisuma ko. léegi tension ba fa am nii est-ce que jàppoo ne euh, réew ma ñu bari dañu wax ne ingrédients yëpp yuy taalum réew instant bi ma nga Guinée Conakry am na ñu fa jot de dee euh, yow lan mooy sa xalaat ci Guinée. non loolu yàgg na Guinée c'est-à-dire que léegi soo xoolee le processus là bul juge Guinée rek ci la fa xaw tey da ngay juge depuis Sékou Touré la fa xew. donc am na pël yi ils ont toujours été toujours victimes depuis Sékou Touré dañu victime ak ñëw ba léegi Euh, ba frustration boobu nga xam ne moo nekk ci pël yi tax na gars yi ñemewuñu peut-être que pël yi jël pouvoir jël pouvoir bi donc loolu ak li nga xam ne moom moo xew ak force bi nga xam ne seetlu amoon na ko élection yële ñu nangu ah, mu mel dañoo ñu walbati ko parce que 18 euh, moo daane 44 pour cent ak tension bi nga xam ne am na fa y a des morts man le jour où j'allais partir dem naa ba aéroport jour dañu ma woo ñu ne ma il y a commandant donc de l'armée qui a été tué te yow da war a dem Kenya ah, le lendemain le samedi donc mieux vaut que yow que tu restes donc vraiment y avait tous les ingrédients pour que tension bi. am léegi nga fa. jógoogu fa nag on ne sait même pas kenn xamul fan lay mujj. d'accord parce que élection yi joxe nañu ko jox nañu ko depuis dem ba tey ji man bi li ma ci dégg mooy gars yi ñu ngay ñu ngi lakk pëne yi ñu ngi xeex ci mbedd yi et cetera kenn moom fan lay mujj. d'accord CEDEAO ñu bari ŋàññ nañ leen. seen taxawaay ñenn ñi jàpp sax ne CEDEAO amatuñu crédibilité silence bi ñu si noppi ndax soo xoolee ñi ëmb CEDEAO ñi si gën a fës muy euh, président Macky Sall Alpha Alassane Dramane Ouattara Alpha Condé muy Buhari ñooñu dégguñu leen te ñooñu tamit boo xoolee euh, li ñuy tuumaal Alpha Condé moom la ñuy tuumaal ñooñu ba nga xamante ni dañuy faral di wax sax ne mënoo nekk juste et parti noppi bi CEDEAO noppi. Euh, lu sax non ñaari yëf laa ji boo xam nga eh, nañ mën nañ gis ñaari fànn benn fànna bi c'est en matière d'observation électorale nan la ñuy xoolee ndax élection bi jaar na yoon wala jaarul yoon beneen bi ñi nga xam ne ñoo seq ay chefs d'état la yu nekk en exercice su dee dañu boo xool euh, pré euh, ci observation xam observation ni ko defee dañ ne ñuy observer dañuy ñëw le jour de l'élection xool bureau yi ndax tout est en place xool représentants yi ndax ñu nga fa. xool ndax ni ñuy watee normal lañ ñu ngi dugg ci mbar yooyu yëpp yooyu gars yi xool nañ ko c'est normal ba ñu tëj bureau yi responsabilité ne pas être dans les bureaux ah, mënuñu nekk dans tous les bureaux suñ tëjee yi pare gars bi dem changé ko diggante fa ñu dépouillé def ko ci àll ak fañ koy yóbboo gisee bi yow doo xam lu xew donc mais yow li nga gis da nga yaakaar ne c'est normal. te alors sàcc mën nañoo sàcc te euh, ko xam. non parce que observateur dañu war a xalaat dañu war a changer ni ñuy observer élection yi saa dañu war a fexe ba comme léegi Afrique gis nañu ne. man ngaa def mu normal xam nga élection dafa normal bëccëg bi bëccëg bi yëpp normal yaa comme problème amul sax ay xeexoo gars yi ñëw ci bureau yi def may si ngay bureau yi ba génn ci bureau yi ba fa ñuy defee seen enveloppe yi ba pare ba dugal ci ak wala fa ñuy defaree enveloppe yi gars yi jël loolu yóbbu leneen déposer leneen lu bokk la loolu tàmpee teg defar ba mu jekk mais xam nga loolu kenn mënu koo surveiller. dëgg la donc problème bi loolu la ñu war a seetaan est-ce que waruñu observation des élections bi. ah ci deuxième parti boobu ñu fexe ba ñuy teg seen bët ci euh, li génnee ca biir dépouillement ba ba ba muy yegg ca seni ba ñu teg seen bët loolu mooy premier problème bi nga xam ne ñuy observé waa waa Union africaine dañuy lu ñu wax li ñu wax mu nañ gis tout bi bien déroulé même ñoom seloog ñeneen ñeeg ñëpp koo wax mu ne problème amul affaire bi calme na de am na mais yow jàpp nga ne euh, euh, mën nañoo luubal élection yi sans autant que observateurs yi euh, di ko xam. ça à moins que observation amuñu xam nga ah, mën nañ ko parce que observation amuñu droit am photocopie PV. ñoom mën nañu jël mën nañu relever mën nañu kii mais kenn du leen jox ci biro yi ko PV yi ko PV yi parti politique yi ñoom ñoo koy jël donc su fekkee ne dem nañu ba pare par exemple lu ñu def woon Kédougou def ko dugg ba pare. dama jël exemple rek ñu def Kédougou def fa élection ci biir àll ba ah. Mhm. ñu élection yi pare ñu jël ko jox ko benn ay nit ñoo xam ne ci gouvernement bi <laughs> ci la ñu bokk naturellement. Mhm. parce que ñoom service ñoo ko yóbbu. mu dem ñu dem yóbbu leneen. et xam nga loolu yow mënoo ki dara. Mhm. surtout que su fekkee nag bureau yoo xam ne gars yi nekkuñu fa. Euh, e d' e accord léegi. voilà CEDEAO noppi gi ñu si noppi. voilà loolu moom mooy CEDEAO li ñuy njëkk a wax élection yi jaar na ci yoon. parce que ça s'est bien déroulé ba ñu xëyee ba ba ñuy tëj normal na te loolu ña fa nekk. mais la fay dee si ni nit ñaa ngay dee. deuxième bi nag deuxième bi nag mooy. CEDEAO ñii war a wax ce sont des présidents en exercice xam nga président en exercice par exemple su président Sénégal bi jógoon daal di wax ca foofa day indi beneen problème diplomatique parce que dañ naan yow waraloo cee wax parce que yaa ngi sa Sénégal na la Sénégal doy gaa yi xas la gaa yi wax la leneen. ba pare tamit yow euh, amuloo moralement mënuloo xas. waaw ba pare no lu la neex ñu wax la rek parce que nit moom su lay xas day seet li la naqari wala li lay gaañ mu wax la ko donc loolu moo tax ay céréales ak yooyu affaire bi dafay jafe. ay balaa dama yaakaar ne affaire population yi la yi dañuy jéem a régler seet nu ñuy régler seen mën seen problème yi ah céréales li nga xam ne nag mën nañ koo wax mooy waruñu bàyyi situation yi di dégradé wu di dem ba nit ñi di nit ñi di reyante. loolu am nañu droit ñu ne nañu arrêté euh, incident yi nañ arrêté nit ñi di xeex nañ arrêté rey yi ñu ne président comme yaa yore li nga xam ne mooy sécurité bi il faut que nga garantir la sécurité de tes citoyens loolu moom nañ ko wax. Eh, mais euh, président ñu bari ñaawlu nañ noppi mu noppi. munu ci ah dama naa ne benn président munu si wax cest à que yëfu jàmbur la. këru jàmbur la lay xew ci biir am na yoo xam ne. soo mais est-ce que tamit tey du caagi ne euh, taxawaayu Alpha moom la Alassane Dramane Ouattara taxawee. boo xoolee Nigéria nit ñaa ngay dee te taxawaay boobu tamit ëllëg Sénégal Côte d'Ivoire kii Côte d'Ivoire euh, Côte d'Ivoire ak Nigéria euh, ëllëg taxawaay bi am Guinée en fait troisième mandat moo am euh, Côte d'Ivoire te jàpp nañ ne tamit mën naa am Sénégal est-ce que du loolu moo tax CEDEAO noppi ci. non ndax ña si gën ñëpp position boobu la. xam nga kenn xam nga kenn ku nekk sa problème bopp nga am c'est-à-dire que il xalaat ne Guinée problème dafa lënkaloo ak problème Côte président Guinée daa bëgg trois daa bëgg beneen mandat troisième mandat comme on le dafa hmm. bëgg beneen mandat. même Côte d'Ivoire. président Côte d'Ivoire dafa bëgg beneen mandat. waaw te il il faut. président Sénégal président Sénégal ñu njort dafa bëgg troisième mandat. non dama la ne. président Guinée dafa bëgg beneen mandat. Mhm. te teg na firnde yoo xam ne war na ne bëgg na beneen mandat parce que def na beneen mandat. Mhm. président Côte dafa bëgg beneen mandat. Mhm. te teg na firnde yoo xam ne war na ne bëgg na troisième mandat parce que teg na ko. bokkul ak président Sénégal. nga xam ne eggaguñu fu ñuy déposer candidature. eggaguñu officiellement foo xam ne président bi war na déterminer wu par rapport à l' élection c' à dire xam nga ñun man li may wax toujours mooy. dañu yore ay pays en construction parce que mënuñu lay xew ci beneen réew ñu bëgg ko méngale ak suñ réew mi te bokkul fi ñu toll c'est-à-dire ñëlee cinq yi dañ ko jeexal tàkk bi ñu demee ba mu des ay fii sax deux mois la bi demee ba Côte mu des deux mois nga dégg président bi ne officiellement je suis candidat kenn xamuloon ne le président est candidat jusqu'au mois de août kenn xamul kenn xamu ko woon. Mhm. ni ngi dañu doon naata bi rek dana ko su fekkee ne. dañ bëgg a indi débat boo xam ne jotul bëgg di werante ci loolu parce que président bi ak lu mën a wax itam nit ñi mën nañ ko am nañu koy gëm am nañu ko dul gëm day day day entraver au processus de développement du Sénégal parce que suñ buggee ñeenti at ñu nekk ko di ko werante est-ce que kon ñun daañ mën a liggéey man loolu moo la sama conception ke départ mooy affaire bu yeggagul nañu ko bàyyi parce que xelum jaambur soo ci buggee nekk ah mm-hmm. non seulement da ngay non seulement da ngay wax loo xam ne wóoru la mais ensuite da ngay da ngay yàqal réew mi parce que président boo xam ne ñëw nga ci biir Sénégal gi dañ laa war a bàyyi yow nga liggéey soo liggéeyee ñeenti at mm-hmm. ba mu des juróom benn weer su boobaa man sama gis-gis mooy yow obligatoirement da nga wax da ngay dem walloo dem parce que na jamono boo xam ne soo fa yeggee jarul ñu la koy laaj yow sa bopp yaay wax ne da ngay bokk wala doo bokk. d'accord léegi euh, ah, ndax yow jàpp nga ne euh, président Macky Sall war naa def ñetteelu mandat yow sa xalaat yow. non man sama xalaat mooy man bëgguma ñuy indi débat inopportun damaa bëgg président Macky Sall bi mu am pour le Sénégal muy faire plus que le président Ablaye Wade mu def ko ndax réew mi man ci jëriñoo mais bëgg ma xam nga su réew mi di xuloo di werante dana dana def ak non yow soo ko waxee non soo soo ko waxee werante mën naa bañ am su ko mag Sall waxee nag werante dina am xuloo dina am mais yow mais yow soo ko waxee werante mën naa bañ a am non xaara yow dégg nga ay constitutionnalistes yoo xamante ni wax nañu si ndax sànq dama laa laaj nga ne li nga dégg ñu wax ko ci tele yi jàpp nga ne Cellou Dalein Diallo war naa gagné yow li nga seetaan yow li nga gis ak li nga dégg ak sa xam-xam ndax jàpp nga ne Macky war naa def beneen mandat. man xam nga man problème bi jëlewuma ko foofu man sama conception. du conception non man maa la laaj yow man maa lay maa lay tontu man tam sama conception de conception constitutionnaliste en matière de droit duggaguma ci loolu bis bu ñu demee ba président Macky Sall daal di ne damay bokk wala du ma bokk su boobaa. man sama bopp danaa mën a dugg ci ay waxu ay droit mais fi ma toll nii man li may bañ mooy ñu indi wax joo xam ne day tax réew mi dóor ñu liggéey. waaw mais ñun ci àll ba. mais mais ministre. il faut ñu wax ko. waaye yow nga koo wax yow yow. non ko wax. mais non Macky Sall sax ngi fiy wax deux mille lu jëm deux mille trente cinq wax programme projet bu mu teg deux mille trente cinq kon li jëm deux mille vingt quatre ñu xam ne réew lenn kese ko mën a taal muy ay élection réew moo gis mu tàkk élection moo ko taal yow loolu nga ne du ñu si wax ndax yi non yow laa wax en tant que jiite parti politique. dama ne. waaw wala dañu leen tere ngeen wax ci. man kenn man kenn mënu maa tere lu may wax parce que man dama ne man président Macky ba may ànd ak moom dama ne ko lépp loo xam ne gis naa ko te ma xam ne lii baax na ci yow danaa la ko wax li ma gis mu baax ci askan wi tam dinaa la ko dinaa la ko wax man li baax ci askan wi mooy. Mm-hmm. waruñoo toog di wax wax yoo xam ne daf ñuy. dafay tax du du ñu liggéey gis nga ñun bañ man man paysan laa béykat laa suñu doon béy ci àll bi nawet suñuy waxtaan suba daan nañ tuug noppi leen kuy liggéey du wax xaar leen suñu wàccee nag da ngay suñu wàccee da ngay dégg ñëpp coow li gars yi yëpp coowandoo comme école rek dans les classes dans suñu ne suñ nee 6 jot na wala ñu ne midi jot na da dégg ñëpp yuuxoondoo d'accord parce que kenn du wax dañuy liggéey. waaw léegi monsieur le ministre. waaw xam nga yow yaa ne lu baax nga koy xelal. waaw. xam nga ne troisième mandat gis nga fitna bi mu indi Guinée Conakry gis nga fitna bi nga xamante ni moom la indi Côte d'Ivoire te njort nañ ne fitna bu ko raw man naa am Sénégal yow boo ko doon xelal loo ko see xelal. bis bu ñu yeggee ba nga xam ne wax ji jot na. waaw su boobaa man Macky dina dégg sama xalaat. d' accord Sénégal dañuy dégg sama xalaat. d' accord léegi euh, ministre waxtu bi li si des bëriwul léegi Thierno Alassane Sall fan yi génn na benn livre euh, bi nga liiree livre boobu noonu euh, yow lan moo ci sa xalaat. non fàtte woon naa loolu parce que wax naa Thierno Alassane Sall dafa mer rek. Euh, xol bi dafa jeex parce que dafa ma xam nga daf ma amaloon lumbu lumbu bu ma dencaloon ndax man Ablaye ci ndigalu Ablaye Wade dama ko dàqoon man maa ko dàqoon moo nekkoon représentant bu Sénégal ci ASECNA Sénégal nome ko léegi ñun bi président Ablaye Wade dafay jël aéroport u Ndakaaru muy 32 milliards dañ ko war a récupérer ma ne jox ko Sénégal si boppam moom dafa dem mu dem ànd ak ki nga xam ne moo doon directeur bu ASECNA di défendre ay position Ablaye Wade ne ma kii xamul liggéeyam il est incompétent parce que dafa nekk en collusion ak partenaire u Sénégal boo xam ne ñun ak moom ñu gis-gisu mbir mi ñu dañoo bëgg a récupérer li Sénégal moom moom mu bëgg ñu bàyyi xaalis boobu ci biir ASECNA ASECNA jël ko di ko séddale ci yeneen réew yi te fukki aéroport ak juróom-ñett yi nga xam ne moo am bokk ASECNA euh, lu toll ak juróom-ñeenti aéroport yi seen xaalisu bopp suñ ko fayoo dañ koy daj Orly suñ fayoo xaalis bi day dem trésor France Charles de Gaulle suñ ko fayoo day dem Charles day dem trésor France euh, euh, Côte d'Ivoire day dem ci trésor Côte d'Ivoire Sénégal na xaalis dañ ko dugal ci gafaka gi ñëpp bokk ñu koy séddoo moom mu dem far ak moom Ablaye Wade ne ma dàq ko ma dàq ko ci laa ko dàq remplacé ko le 4 janvier par ku ñuy wax Abdoulaye Diouf moom la moom moo ko fa remplacé la même chose bi mu defoon ci ba ba Ablaye Wade ne dàq ko noonu la defaat ndax bi ñu demee ñuy joxe marché pétrole bi ñu koy jox moom tubaab ba mu faral da ne Macky bàyyil yow tubaab bi nga xam ne réew mi ñoom la ñu gis ne moom lañ jàpp ne moom lañ ko war a jox boo ko jox yaag premier ministre fekk si leen ma man ministre bi ah ci li ma bëgg ñu jox ko sama tubaab donc donc xamul ne président moom moo ko nommé foofu moo ko fa teg. ah loolu tax mu Macky Sall dàq ko. non am na droit dàq ko président de la République moom moo yore décret su la nee defal nangam nga ne doo ko def. su fekkee dafa ko def sax ci intérêt Sénégal waaye gafaka boppam la poosu boppam la ñëpp yaakaar ne moo tax mu def ko parce que loolu lañ yaakaar ne loolu la ko directeur ASECNA defoon am na ñu ne sax dañ koo geroon ba nga xam ne moom si boppam dafay wax waaw ASECNA loolu moom moo tax ma ne la kon moom euh, intérêt boppam lay seet parce que parce que affaire euh, affaire affaire moom ñi mu ko bëggoon a jox su fekkoon dafa nañ ko jox ñoom béy di aañ wala nañ ko jox waa kenees wala nañ ko nañ seet sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci pétrole bi ci yëngatu ñu jox leen marché bi waaye bu ñu ko jox tubaab yi kon ma mën a ànd ak moom sax xañ ne même su ci amul doole sax wax bi muy wax sax wax boo xam ne bu nationaliste la mais bu lu jox sa tubaab jox ko sama tubaab kon tubaabam dañ mel ni poosam moo tax mu bugg ko ko jox. d'accord ensuite muy divulguer ay message yu mu envoyé ak premier ministre ak yooyu premier ministre ak président mën nañ la dàq ngay wax ak ñoom ñu lay wax ngay dëgër bopp ba pare nga di ko damoo. mais loolu loolu dafa mel ni yow amuloo capacité homme homme d'état nga mën a yor réew mi et puis et puis xam nga le fait que ngay bëgg a fayantoo kut ko kut dafa lay erreur ku bëgg a yor réew du fayantoo Abdoulaye Wade nee na ku bëgg a yor réew am na yooyu yëpp yu bëri yoo xam da nga koy da koy gëmm bu bëri da nga bale d' accord léegi euh, mënuñu weesu Abdoulaye Wade mi nga tudd sànq gis nañ ne fan yi ñenn ñi sax ñoo ngi wax ne dafa bëgg a porter euh, ñi nga xamante ni tey ñoo fa ñëwoon ba ñuy def seen lancement parti boobu euh, saccage ba nga xamante ne am na fa am ñu ko tuumaal sax Baara Gaye PDS mel ni dafa yënguwaat mais yow monsieur le ministre Farba Senghor dafa mel ni yow mënoo noppi ci PDS bis bi yàlla sàkk yaa ngi leen di yaa ngi leen di yàq musiba lu waral loolu wala tax kay Wade bi nekk bi ñu génn réew mi yóbbu ko dowaa mu nekk fa mënta noppi ci Sénégal parce que dafa jàpp ne Sénégal Sénégal am na réew mi fi la juddoo man damaa jàpp ne PDS sama set PDS la PDS falaa juddoo politiquement falaa xam falaa man lépp. mais dàq nañ la ma mais dàq nañ doo fi bàyyi parti ba. Karim dàq ko pourquoi du bàyyi itam toog ba bàyyi Sénégal Karim dàq na ma su fekkee ne dafa mën a dàq ne ma demal toog ma dem toog moom moom tam ñu dàq ko mu dem toog man danaa mën naa toog mais su fekkee ne moom ma ma dàq dañ koo dàq mu toog fa mu toog naan ma yow Farba yow dama laa dàq toogal. way avaaye ah, man damay dugal sama loxo ci biir réew mi loolu elul maanaa yéen tam il faut ngeen conséquent da ngeen di war di xalaat ak seen diggante ak yàlla bëgg PDS ak bëgg Abdoulaye Wade bu mu tax ngeen di jël position yoo xam ne position yi sont des positions erronées parce que li valable pour Karim moo wara pour man Karim dàq nañ ma PDS génn na ma PDS na ma bàyyi man tam may wax ci PDS moom itam dàq nañ ko réew mi nay wax ci réew mi d' accord mais euh, xam nga am na sax différence. Euh, non ban différence. non PDS benn parti la ay nit ñoo ko bokk ay nit ñu néew mais bokkut ak Sénégal gi nga xam na ñu ñëpp ñoo ko bokk yëpp benn rek léegi yow la moo nga ne tant que nekkuloo ci PDS Karim mënut am taxawaay ci politique Sénégal. parce que la àq dafa baaxul bi àq àq doomu aadama. bis boo ko lekkee ren ba déwén te feeñul ci yow boo fekk na lekkoo àqam. Karim dalaa tooñ. Karim damaa tooñ parce que man PDS laa xam. Karim dafa léegi defal naa ko parce Karim man ba mu ñëwee man lañ tekki léegi Karim mu ñëw ma am coloré gu rëy ak baayam sonn si ñàq ci am naa ci nag ay xéewal am naa ci ay privilège mu ñëw mu génne ma Habib si wax si euh, Talla Diouf euh, wax si euh, ñu bari ñu bari wax si mhm. Aïdara si laa wax si mu bañ na far ba rek nañ ko dàq Abdoulaye ne ma baal naa la mu ne déedéet bàyyi bu ko baal dàq ko mhm. donc damaa waxoon ci rajo yi ak télévision yi jour boobu ma ne su fekkee ne li Karim dàqee ma dëgg la nga xam ne amaluma benn aax bu ko ci dara fekk waaye su fekkee ne sama àq man Farba Senghor ak Pape Samba bi ñuy dàq mi ngi ci euh, su boobaa nii ñu seppee suñ loxo yëpp gars yi Sénégal ñii di ñu ree ñii di ñu caricaturé ñii di ñu wax lu ñaaw Karim nañ ko génne loxoom ba mu seet wecc ci lépp luy politique ci Sénégal loolu moo tax ma xam ne yàlla gëmul gëmul gëmul nelawul loolu moo tax. may léegi ñenn ñi jàpp nañ ne dana toog foofu. léegi jàpp nañ ne Bara Gaye tamit nañ ko bëgg a isolé biir PDS. xam nga ne yow loolu mënta ñàkk gis nga bañuy ñuy départ yow doo suivre sax groupe yi groupe PDS ba ba ñu nomee Bara Gaye ne ko yow yaa jiite laa leen ne Bara ak Karim yàgg yàgg dañuy dëngoo ndax Karim dafa mos a wax ne Bara Gaye est un illuminé c'est-à-dire soo ko joxee dara da koy gëm capté ko téye ko ni ci faax ba fees te Karim bëggul ñooñu Karim daa bëgg ñu donc ma leen yàgg yàgg yàgg Karim ak Bara Gaye danañ féewloo billaahi wallaahi taalaa yi soo ko laajee waa PDS yi ñu ne la lii nañ ko wala ñu ne la dégg nañ ko ma ma bind ko mais Karim politique am moo baaxul politique de de destruction massive la boo xam ne rey doon la gisoo depuis Pape Diop ba léegi PDS jeex na ancien la nag baayam jeex na moom dégg dafa dafa lekk euh, ñi nga xam ne ñoo ànd ak bàyyam ba ñuy jeex mu écrasé leen rey leen moom nag ñi nga xam ne moom moo leen créé woon depuis 2009 mu jël leen di leen rey benn par benn ñoom wal joojoo soo leen gisee les Amina Ngiraan euh, les Maymuna les trucs euh, les Amina Saaxo euh, ñëpp Lamine Thiam ñoom fekkoon ko sa yàgg na da koo rey donc koo fa gis rek mu àndoon ak Karim bu njëkk rek soo laajee rek ñu ne kooku àndut ak moom. lu loolu. non dafa am gaafu rey doon d'accord c'est-à-dire àndee yow bu utiliser la ba jeexal si yow daf lay rey gis nga fi doon PDS soo laagee ñu doon ànd ak Karim bu njëkk. quatre-vingt-dix pour cent yi dem nañu jeex nañu xoola ñoom Joni Ba euh, xoola ñoom euh, madame Oumy Oumou Salamata ñu ñu ñu doon ànd ak ñoom waxuma la ñeneen ñi de ñu doon ànd ak ñoom ñëpp soo laajee waa PDS yi gis nga ñu ne dañuy porter plainte kan ay Mariaw Mariaw kay dëgg-dëgg war na koo yërëm parce que kooku da koo bëgg mën a topp xoolal euh, xoolal kii galotaal mi nga xam ne dóor nañ ko ci plateau yi pour Karim ñu xëy ñu ne yow dañ koy porter plainte est-ce que loolu ñaawut E, presse egg na foo xam ne déconfiture boo xam ne déchirement boo xam ne cest yow dire yow soo koy xool de lu da ngay rus mais li ci am solo rek mooy Farba Senghor la mu doon wax dëgg la dama leen yàgg wax ma ne Cheikh Ahmadou Bamba dafa waxoon ne yéen ñi nekk ci dëgg da ngeen di gëm dëgg bi ngeen nekk ngeen jaar ci yoonu njub te ngeen dem ndax yàgg-yàgg dëgg day feeñ te su dëgg feeñee da ngeen am ndam. jërëjëf man nag lépp lu ma si mos a wax nag dëgg bi feeñ na. te ndam bi day ñëw xanaa nit ñi bañ ma koo jox d'accord waaye lu ma ci wax ci Karim rek am na <laughs> jërëjëf monsieur le ministre ñoo ngi lay sant di la gërëm waxtu wi jot na jërëjëf euh, monsieur euh, Farba Senghor moom la ñu invité woon tey moom nag moo jiite parti bi di euh, les libéraux républicains mbooloo askan bi mbokk yi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay pencum réew mi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm